palais douze ans bugg fa nekkaat fa bugg fa continuer rek beneen douze ans mënul nekk nag doy na doy na na sa waay <laughs> to naa laa tong mënul continuer rek non non nañ jox ñeneen tamit parce que am na yeneen langue am na yeneen langue nañ dugal foofu tuuti joolaa ñëw wala bambara wala soose au moins <laughs> na leen dugg c'est ça voilà <laughs> kii ne to ko bandu allah def ngeen li ngeen war a def nice léegi nag na ñeneen ñëw na keneen ñëw voilà loolu moom mooy multiculture mooy wane suñu culture voilà bu yàggee bu fekkee dañoo jël benn xeet kese mu day bu yàggee sax day day monotone day mel ni xeet googu rek a fa ne quand même voilà xool wala ñam benn euh, xool wala boog <laughs> bien ci la ñuy xam sax ñëpp c'est le Sénégal voilà mu noonu donc les ñoom nañ fexe seen i pexe mais du sotti dégg nga nañuy texe nañuy pexe seeni pexe mais duñ ci texe waaw ñoom du wutuñu lu dul fu ñu féexee di fexe seeni pexe waaye du fi texe texe ci pexe <laughs> munul nekk voilà beneen booleen leen def baax na yéenay choisir rek mais ne ko bandu moom jeex na 12 ans moom mënatu amaat beneen moom Ablaye du Ablaye Daouda Diallo du Amadou Ba <laughs> voilà gis nga c'est loolu la Idrissa moom boolewu ci boppam sax gis nga wor wor baaxul wor ndeysaan pourtant sama gars yi suñu papa Idi mi ngi ci dëkk bi de ndeysaan boobu lay saf ci yàlla yàlla nañu yàlla muccal te musal ñu ci wor wor moo bon wor yàlla da lay toroxal Idrissa Seck de mi ngi ci réew mi ay booy ndaw ay ñu ñu ñu ko mat doom lañuy wax. gars ay Sonko seen de sens sax Idrissa Seck mun na ko jur Idrissa Seck def ndeysaan dafa <laughs> ma ngay weex tàll di wokk boobu rek ay waay may doomeram war naa nii askan askan waa bàyyi nañ ma de day safatuma ko waa pap pap pap man de réew mi kenn du waxtaane duñ ma wax ci plateau duñ ma wax ci mbedd duñ ma wax ci grand place ma nga ne xut jommi <laughs> <laughs> dina mel ni ma dikki ñaa fu ma dem toj ko fu ma dem toj ko am am am deux voix fu ma dem toj ko am deux voix Idriss Seck yi dina mel ni Mbàkke kii <laughs> ma dikki ñaa xam naa Idi dina ñëw <laughs> salaamaaleykum gaa gaa yi di ko woon ginnaaw gaa wa man la Idi Idriss xanaa da ngeen maa fàtte Idriss Seck Idriss Seck bu Ablaye Wade waaye yéen sama gaa yi nu ko demee nii ah xool élection dina ñëw Idriss du gis picc temps yi passé woote woon na maa ngi woote képp ku nekk euh, réew mi nga ñëwaat la retrouvaille de la de la famille de réew mi xool picc gisu ko picc <laughs> yàlla bu roccee jalaal ci yow yàlla bu roccee secret ci yow oh booy fleur yi sax ñu lay gën Idrissa Seck nee na le retrouvaille de la de la famille de la famille ay réew mist le retrouvaille de la famille réew lañuy ñoom ñëpp nañu ñëwaat xoolal jour boobu këram jabar ji moo fa toog ak moom ak ak doom yi góor yeeg jigéen yi ñu ñu ubbi seen bunt di xaar suba ba guddi nit duggul ci biir kër ga suba ba guddi nit duggul ci biir kër ga sa eh, bi ci këram googu noonu mu koy def palem boobu nekk nekk Thiès la ko bëggoon defee ubbi nag toog di xaar na demee retrouvaille dans mon salon am na caakiri am na fonde am na laax <laughs> soxna si moom yéen xam ko moom moom daf ma mos man bu ma ñëwee di ko doxaan dafa bañoon mais ma ñëw sama yaay ne ko dama ko doxaan mu bañ sama yaay ne ah, la hmm, moo taxit après ma woo sax ne ma si si si je t'aime I love you moom gel bi bu ma ko doxaaree mu bañ si guddi gel moom moo ma woo toute la nuit naan ma j'ai rêvé de toi ubbi buntam xoolal Pape Djibril Fall sax ko ëpp nit <laughs> Pape Djibril Fall sax moo moo ëpp Idrissa Seck ne ñëpp ko bàyyi ne yàq bu naqari non Idrissa Seck gars yi yooyu ni ngeen def Idrissa Seck ñaaw na non sénégalais bu la bàyyee Djibo Leyti Ka la may fàttali ni ngeen defoon fii Djibo Leyti Ka ngeen def Idrissa Seck <laughs> noonu ni ngeen bàyyee yàlla bu leen ma bàyyee noonu yàlla bu leen ma bàyyee noonu yàlla bu ma def ni ngeen may xeebee ni ngeen xeebee Idriss Seck yàlla bu mu mus a def ni ngeen xeebee Idriss yàlla bu ma mus a def loolu ba ngeen xeebee ma noonu ni ngeen bàyyee Idriss Seck ñaaw na de yéen tamit gars ni ngeen ko def ñaaw na de jàmbur la it papay jàmbur la de ak lépp lu mu leen mën a def ni ngeen fay woon ni dafa ñaaw kon yéen nii ngeen di def nit ni ngeen ko fu ñukk na yàq bu naqari bu waxee du saf bu jógee kenn du ko yëg bu toogee kenn du ko yëg mu ngi mel ni ku faatu néew yi sax ko ëpp promotion ay waa Idriss Seck néew yi ko ëpp promotion ñoo xam ne dee nañ mille huit cent ba léegi ñu ngi leen di tudd ay ñoom jiiri mbay ak njuga kebe waa jaa ngi mel ni ku dee fàtte nañ ko suul lañ ko wala Sénégal yi kuy def defal lu baax buñ la bàyyi rek nga torox non dañ lay multiplier par zéro jël la suul la te deewoo <laughs> waay yàlla ma yàlla muccal ci ni ngeen def Idriss waay cay xaaral ma naan sama attaaya man na ngeen ko def tey hmm. idi ah soo <laughs> tari suratu muñ rek <laughs> idir borom saare ak ah, kaw mën a gàcc voilà maa dee mu ñëw boobu mais nan ngay nit mënoo leen nax cent ans ay saar Idriss depuis jamono Ablaye ñun ñi ngi nekk tout tànk ba màgg nañ tey laal quarante yi Idriss rek bu ma demee ma ñëw fekk ko mu teg euh, café ak beñe dugub bu ma xoolee sax xool naa set beñe dugub la ak benn bu mu jot a xàmp set beñe dugub la yu mu teg noonu kafe gi mi ngi ko teg xam naa café Touba la parce que mi ngi xeeñ jar mais bu ma ñëwee fekk Ousmane toog mu ngi nekkoon quatre heures quarante cinq ñi nga waroon xëdd euh, quatre heures cinquante dañ ko waroon salaatu mu ñëw xool gis chaque bañ a dugub yu ñu tegee nii day mel ni sax carré nu mu ko tegee day ngay xool rectangle la lay jox maanaam rectangle parce que nii la tegee bañ dugub bi teg ko nii teg ko nii day jox rectangle da septième bi nag boobu dafa mel ni da ko xam sama xel dem ci surat fay al fajar surat ak al fajar fu yàlla di waxee ci fajar ci yaa yàlla naan <laughs> jàpp yàlla di ko foowee jàpp yàlla ak saaram yi sóoraat yi ne moom da ci politique di ko politique quoi di ci di di ci gëlëma laate idi fii xoolal kii bi idi fii kenn jommeetul xoolal léegi gars yi jommalatuñu tubaab bi defar nañ la idi xoolal fii boo defee nii ah xoolal boo defee nii mi ngi nii muslim pro idi fii wax lu ñu xamul xool la ngay wax nii fii muslim pro <laughs> booy bu ñu amee muslim pro ba léegi jommalatoo leen ñi la ñuy def rek dugg muslim pro ni nii xoolal dugg mu ngi Coran mu ngi nii loo Coran xool parce que yow ci Coran nga ñuy jéem a naxee tak tak nga dugg muslim pro Coran nga nga xool sóoraat bi mu wax la ko français anglais <laughs> idi yooyu jeex na yooyu ba nga ko doon def muslim pour amut ba ñuy foowee jàpp sóoraat yi di dakka teg di boobu muslim pro amut léegi gaa yi po yor muslim pro nii lañuy def rek dugg ban sóoraat ngeen bëgg mi ngi nii yëpp ngi nii <laughs> boo leen dugg rek mi ngi nii rek dañu ngeen wax ma ci saase ma tegal leen ko <laughs> léegi yaa ngi de muslim bureau bi la ñor kon loolu ce moyen de de de manipulation de propagande yooyu c'est dépassé c'est dépassé c'est dépassé. yal na la yàlla yërëm yow dama ragal balaa deux mille vingt quatre nga faatu ci naqaru xol ma yaakaar ni balaa deux mille vingt quatre nga nga dee ci naqaru xol idi yal na la yàlla yërëm waay cey idi nu mu mujjee ñaaw na. <coughs> man xaw ma yéen a mun a bàyyaate xaw ma idée leen def lu ngeen ko bàyyee waaw foofu bëgg naa ñu wax waaye yéen idi moom lu ngeen ko bàyyee nii lu mu def gars yi idi idi ni ngeen ko bàyyi ñaaw na de ay waaye idi ni ngeen ni ngeen ko ne ñukk na yàqu bu naqar idi ni ngeen ko def na ñaaw na kenn ko def doomu aadama ah, jël ko furaaseel ko toroxal ko ba mu ne tot ci seeni seeni ginnaaw kër ay idi ni ngeen ko def ñaaw na yi mi ngi dund mel ni ku dee foo leen dégg Idi foo leen dégg Idi sama gaa yi kenn gisu ko aywa waa gars yi fan lañ suul Idi ban ban cimetière ñi dem ñaanal li ko foo leen foo leen ko suul xanaa boo leen buñ boo leen suulee nit sax ngeen wax ni fan lañ ko suul ñu dem ñaanal ko dóoru ko dóorul ko illixlaas ak falax ak naas yi foo leen suul Idi yéen li ngeen ko def ñaaw na de moo tax mag mag bu mun fen baaxut mag bu mun a fen mun a manigance <laughs> booy idi bu toogee ci dëkk bi gars yi naan ay ñii naan Amadou naan ay xaw ma Abdoulaye Daouda ay Khalifa ñii naan Karim idi toog ci dëkk bi <laughs> ngeen xam ni sa torox na idi torox na tot idi nag moo torox tot tot tot idi ci réew kenn gars yi naan ay Amadou Ba ñi naan Sonko ñii naan ñi ñii seen waa ji lu dernier chance <laughs> Pape Djibril Fall ñii te pa te Paa baa noonu toog jombi astafurlah <laughs> moo taxit xam na boppam de nee na muut <laughs> def na ñoom ngeen leen di def nag Amadou Ba sàcc bu mag la sàcc bu mag ñu ñëw ci moom tamit. <laughs> moom la ñuy xaar ñi ngi xaar kenn ci ñoom rek xam nga ñoom boobu ba léegi kenn kenn ñi wax candidature am ñoom ñëpp a ngi toog ne mu <laughs> dañoo ñoom ñëpp a toog kenn ñi mul wax candidature a ngi ne teg fii daal kenn lañ fi xam candidature am mu Ousmane Sonko lañ fi xam candidature am ñëpp xam hmm? mu Ousmane Sonko ñeneen ñëpp nekk di kenn ñi moo tax ko wax de xam nga Sénégalais fu ne nii ñu bon banque. seen tànk baaraam yi tànk boulon central bu amul air noonu la sénégalais yi def bang ci ci nopp waaw kenn daal dañ fi dégg sa Mame Boye Diao dañ koy dégg day wax Mame Boye Diao wane na boppam amul complexe devant kenn wane na boppam Ousmane Sonko man fu neen élection bu amul Mame Boye Diao moom c'est sûr dina fa ne Ousmane Sonko dina fa nekk Pape Djibril Pape Djibril wóoru parce que mun na bañ am mun na bañ a am kii parrainage ñëw Amadou ñi ñëpp dañuy wiiri wiiri kenn amu ci fit <laughs> ñi ngi leen di mastaw sénégalais yi ñoo soxor ak ko ñu ñoom fulla nag sénégalais xaw ma noo ko yàbbee même fulla yor na ko fulla nga ñàkk xaalis ñàkk fulla loolu du sénégalais mun na ñàkk xaalis mais ñàkk loolu du sénégalais waaw rek moo fi officiel moom officiel la ñu wax so bu Sonko kese moo fi officiel ndaamal kajoor ka yàlla ko yàlla yërëm te xaare ko àjjana waaye ay xool fu mu mujjee yoonu jibaleyti kay yi la jël <laughs> toroxal nañ ko tort tort waaw kon sama gars yi ñu def noonu di ñaanal Sonko yàlla ko yàlla defal jàmm ak salaam yàlla ko yàlla bette xewal yu bëri waaye yàlla defal ko ndam waaw voilà euh, defal ko ndam lu rëy lu kawe suñu njort lépp lu ñuy mbébét ci senegal ci lu baax yàlla ko yàlla def bu dee lu baaxul ci réew mi yàlla bu mu am yàlla na yàlla defal ndam Sonko Sonko day bokk de gars yi day bokk bàyyi foo Sonko day bokk incha allah te nguur gi ñëpp ñu am baatin gis nañ ni da koy jël incha allah dina jël nguur gi de waaw Sonko dina jël nguur gi de incha allah yàlla na yàlla def loolu. jaajëf sama gars yi one love much love li moo newoon information ñu leen jox ak waxtaan bu ñu def suñu biir yàlla yàlla def ndam di leen wax bon vendredi. bu leen fàtte sóoraat alkaaf hmm? bu leen ko fàtte am na solo ci ajuma ji di ziar suñu yeneen mbokki chrétien